maandu nag suñ ko waxee li ñu ci jublu mooy jullit bi képp koy boroom xàq nga jox ko xàq ba mu sëkk ba doo ca desal dara ba bañ koo tooñ dara lu néew néew ba a ëppal bañ a yeesal mu ne maandu mooy loolu boroom xàq ji nag nga jox ko xàqam ba mu sëkk ba doo ko tooñ dara lu néew néew alquran tam soññee ci bu baax baax baax wone ne mboolem li yàlla wàcc ci yonent yi ci ay téere lépp dafa lalu mana a la ko laltaay mooy ak mando laxad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna maahul kitab kitab mizana misana li annaasu bil yónni yónni nanu suñuy ndaw ci lay wu leer naññi dëgg gu leer naññi wàcce ci ñoom ay téere ak màndaxe ngir ñu taxaw temm ci atte nit ñi ci dëgg ci ak maandu ngir saxal ci nit ñi ak maandu kon mboolem arisala da samawiya muy mboolem téere wàcc ci asamaan ci yonent yépp donte jamono ya woote na bokkuñ jamono yu ñu wàcc bokkuñ barab yu ñu wàcc waaye yépp dafa ñëw ngir saxal ci nit ñi euh, dëgg ak màndu mu teg benn màndaxe menn màndaxe ak benn nattukaay ñu di ci natt nit ñi te loola mooy mooy mooy màndu nga xam ne sëñee suta jox xaq nit xañ ka ca des ngeen ne dañoo wuute aw xeet sañoo sote jox xaq kenn nit xañ ka ca des ngeen ne dañoo wuute melo yaram ñu lay baag xonqaay baag weexaay ba du jeexital ci diggante nit ñi ci wàllu maandu diñ war diñ war a seen biir kon màndaxe moom ñu doy na sëkk ci taxawal dëgg akum ci biir nit ñi yalla mi nga xam ne nit ñi tam fofu la leen teg ci yamale nga xamné ci walu ciofel du ci jox kenn bu jëm xañ ka ca dess wala aw xet mu jox xet yi haq jëm joxul xeet ca dess nga dafa defal nit ñi manhaj mana aw yoon wo xamné da dafay lamb seen dund lepp ci ron kepparu deug akul manu su wax ne إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن أن فشل المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يالله في الدين لما أكو رفتل ما نو واخنا ليك موي لن احسان نك جيمتي رك موي كيغا جو حق نغا بانتايام سو حق متي nga tegal ko ci len loo xam do àqam ah yaa ko bax te yalla tax la nga xamne warul la da nga def la la war bu nopi tek ci lolu warul loo xam ne yaa ko baax ngir jëm yàlla loolu mooy ihsaan kon al adl wal ihsan lañ bëgg ci am julit jël bu rafetal mu def ko waye tam digal len ngeen di jox seen jegeñaale waaye non la tere ñaawteef ñaawteef wu ma don mo xam bu fay mo xam mu neub la ak lépp loo xam lislaam sib la ak ndawte mu ne loolu yi nag yàlla dañ ci waar ngir ngeen di fàttaliku la'allakum tadhakkarun ngir ngeen di fàttaliku sans it jël ni euh, xataada wax ne inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan mu yaayu jooju mu ne amul benn jikko wala jenn jikko ju rafet joo xam ne jamono ceddoo ko daa nañ ko jëfee te daa ko rafet lu may lislaam di ñëwee digle na ko amul jenn jikko ju ñaaw joo xam ne ca jamono jaahiliya daanañ ko ñaawlu di ko moytu lu muy bi na ko lisan dafay tere kon mboolem jikko yu suufe yi waaye di tere mboolem jikko yu ñaan yépp kon yàlla dafay digle kon ay jaam ci maandu ci diggu doomu waaye noonu lay tere itam njawte tàmbooteeg moy nono ak eh, nit ñi te jublu sharia may tax lam ci jublu moy may may taxal ak maan yi seen kan, diggante ba nit ñi man nak nek lu am solo lol solom nak may sa ko xamé ci ay ngir bokk na ci alquran bari bari gum bari lu koy tudd maanu ak ay nga xamné ay musso ci bari bari rot na ci bok jin inna ya amurukum an de al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas fa an tahkum bil 'adl da fay daf len di digal ngeen matal kóllëre ak ñi ko sekkal su ngeen nga ci ak dig la mando ci bu wax ñu di ca wa ila qultum fa'dilu su ngeen di wax na ngeen mando ci wax ja dig la maandu ci kàddu waaye dig la koy itam ci mbind ba ci li ñu bind lépp lu ñu jëflante ci wàllu barak ya ca aju suñ koy bind nañ maandu ca bind ma wala yaktub baynakum kaatibun bil adli su ngeen seq bor wala bépp jëflante nañ ko bind te ko koy bind na ko teg ci ak maandu soññee ci maandu it

رسول محمد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن Yeah. mu mel ni nag di soññee ci ak maandu yonent bi salaa sam da ko limaale mu amee àtteb sarax ci xadis bu wax ne taadilu bayna isnayni sadaqa maanu ci diggante ñaari nit kon nga jox ko xàqam jam yayoo àtteb sarax la amee ci geneen am itam moom moytandiku lu lool moom borom subhaanahu wa taala moytandiku lu lool tëg koo ci ñàkk a làmboo ak tooñ tooñ ñeneen mu tëg ko ca wax ne bari dëkk yu ma alage yoo xam ne la mu leen tëg la mu leen alage mooy ba fa maandu toxoo ak tooñ daj fa kapp wa tilkal qura ahlaknahum lamma walamu neen dëkk yooyee mooy dëkki waa giirug aad dëkki waa giirug Euh, Samrud dëkk waa giir Madiana neen seen dëkk yooye alak naa leen ba fa ak maandu toxoo ak tooñ daj fa kapp del waxam ne fa ka ay min xariyatin ahlaknaaha wa hiya zaalima ñaata dëkk laa alak te la leen alage mooy ba fa ak maandu toxoo tooñ daj fa kapp ñaata dëkk bu ne ñaata nangam rek la fi teg la mu tegtal mooy bari na kon l'islam kon mën nañu wax ne kon l'islam diine mandu la ngir li fi nekk ci ay xeeti xàq te xàq yi bari lool te wuute xàqi yàlla subhanahu wa taala moo ci jitu xàqi dëkkandoo xàq julita mbokkum jullitam xàq diggante baay doom wala doom ak baay xàq diggante nit ak borom këram nit ak soxnaam xàq xuquuq yi dafa bari lool waaye saa bu maandu toxoo nag ca yooyee la muy jur nag mooy ay ay ay ay ay ay coono yu métti yoo xam ne benn benn yeeg mbooloo yi dañ jànkonte ak moom te ëpp solo ci yam yam yam ñu yóbbee mooy ñàkk ñàkk ñàkk kóolute mooy ñàkk sécurité dafa daal di dàqu ay xàq dañu daal di ñàkk sumuy xàq moo xam suñuy àq ci suñuy alal moo xam suñuy àq ci suñuy der dafa indi tam ñu ñu woyefal ñu suufeel atte mën a suufeel justice dañ koy suufeel mën a mën a dootu dootu jaxite ci nit ñi la muy indi mooy day mujj kañ kañ tooñ gannaaw maandoo ëmmatul ci wàllu atte kañ tooñ day mujj wala du ko def day jéem fayal boppam di jéem a jële boppam xaqam te loolu pëcc xoolay jur su yàggee ngànnaay daal di jukk mën a dem ba indi guerre civile lépp ñàkk man bokk bokk na eh, jafe-jafe yi nga xam dana ko indi kon ñàkku maandu wala dàqu maandu sabab la ci faatu ay bakkan xoola fan yi lii faatu ci ay bakkan ñu ñu ñu ñu bari ci ak kaw rek ñaata ca ay alal yu jalgati di ko yàq sabab la kon ci itam ci wóote ci kàddu soowo yu bari nga dégg wax yu ñaaw yi waxante yu ñaaw yi sànnante kàddu yépp la ko indi mooy ñàkk maandu ñi nga xamne mo fi moo fi kon ñaka maam li mëna jur ci ay fitna ak jafé jafé bari na maana nak am jëm am solo tax na lislaam da ko soxla ci lepp motax suñu tan imam ko maandu lañu tan maandu ab saat la ci ak imamatu suñu fas ab sey ñu ne lu neew neew na ko ñaar ñu maandu séré suñu seq lu jëm ci walu bor nañ ko bind te ñaar ñu góor ñu maandu séré ko su jafé kenn ko góor ko maandu ak ñaari jigeen ñu maandu suñu séentu weer su ñaar ñu mando waxe na gis nañ ko na ñepp su ko ndiko mbaa mbañu wari ba bu dee ween itam ñu japp ci lola ba ci mu daara gi santane ñu di mu daarante maanaam maslak ñi ñu bokkum diine nañ caa charte ka koy def don borom xam-xam bu mando mu sentu ba bu jangale ne wala lahu suhbatu fasiqin wala khuntatuhu li xëy darrin musjala ومن يشاركهم هنا في عزهم يكن شريكهم غدا في ظلهم واجتنبوا خلطة هؤلاء لأنها mu ne bu yàlla ci ab ci mukallaf muy àndandoo ko kàccoor mbaa ko bokk lu dindi ko dafa àndandoo wala mu jaxasoo moom ci ta lor waralu ko nee na képp ku bokk ñoom seen tedd ngay àdduna ji ëllëg da nga bokk ñoom seen seen toroxtaange ja na ngeen moytoo jaxasoog ñooñi ndax bokk na jaxasoog bokk na ci li gën bon ci ci mbir yi mu tekkeen laakin mu daaraatu mu xad mu dibat kama bi nasin fi xadiisin xad sabat wa xadduha irdaahum bi gayri mu hiya makruhun xulaw muharrama waaye nag mu daaranteeg ñoom sopp nañ ko ni ci ab xadis roote jàngale ko waaye nag eh, maslaaga day yem ci loo xam ne day doo ko tere moo xam muy tarak xaraaman moo xam muy tarak tarak sib mu teg ca walam taliq illaa li aalimin kamil xat kaana daa adalatin wala yamil fal aalimu ljaahilu laa taliqu bi wa mithluhu ljaahilu aydan fanta bi mu ne du jaadu nag eh, jaxasoo googu wala mu daarante googu du jaadu ci lu dul borom xam-xam bu ma sëkk tey ko maandu ta du jàng waaye neen borom xam-xam donte am na xam-xam waaye dafay jàng kooku ba mu mu daarante ku réer ku jàng ku ku ku amul xam-xam ba mu daarante kon nga xam dañ ca sàrt kon kay mu daarante doon ko am xam-xam te doon ko maandu nga gis kon kon lislaam du ko soxla fépp maandu lislaam la daf lay daf lay daf lay topp ba ci sol wenn daal di ko doxee sax mu doxee sax la ko ndax soo doxee wenn daal mooy jox nga àq tànk bee xañ ko bee tànk ba nga sol aw dal jox nga ko àq jooju tànk ba ca des ñàkk maana ko mu la ko leetar xaajal sa jëmm ci diggante ker ak naaj soo ke xaaj bi daane ci ker xaaj bi ne ci naaj jox nga xaaj bi ci ker boo joxul àq ba xàq ñu joxul xaaj ba ca des dina tere nga gaañ ab cër ci sa jëmm ci dagg ko wala bënn ko wala lakk ko ci ak jublu ngir doon maandu moo tax mais jigéen ñi te bën seen nopp yi da ci dafa jaaru fi ne dëgganut day def nag ñaare mbir bu demee ba ba tasaaroo bari bari liñ ko gis rek day mujj fo waaye woyofut dagg sa cër wala bënn ko wala gaañ ko ci genn anam lislaam da ko tere ba dee saan dafay day sàkku ci ki jaay ma maandu ca la muy jaay suñ na awful kay la wala ko ni mu muxsirin awful kay la wala takun min musin na ngeen bu ngeen di peese na ngeen maanu ca peese ga bu leen ca pettal ka ngeen di jaay mbaa ka ngeen di jënd ci moom wasinu bil xustas al mustaqim wala tabxus nas asha wala tansu fil ardi mufsidin na ngeen di peese teg ko ci maandu teg ko ci njub bu leen pettal nit ñi seen yëf waaye bu leen bu leen bu leen bu leen dox ci suuf si di yàq ndax loolu ak yàq ci suuf si la waxaat feneen ne wa aqimul wasna bil xisti wala tuxsilu misan na ngeen taxawal eh, seeni peese ci ak maanu waaye katal leen pertal seeni màndaxi moy seen seeni peese wala seen mat ni lislaam sakko ci yow manu def ni lay sakko ci yow manu baye ta moy lepp lo xamne sayon niwu ci wala amul lu la njariñ nga manu ci ta lol ci diine ju rafet la bok ndax li ngeen di sa sam waxoon min husni isal marita ko mala ya'ni yaani bokk nañu rafetul islam nit ba di de baalu ko muy njariñ mu maandu ca sëñ abdul ahad mbàkke da daa wax ne ak dëgg su doonee dëgg ba noppi bala ko wax na ca na ca benn ñett yi daje na ca benn ñett yi am na ca sa yoon nekk mbaa ñu laaj la ko mbaa ñi koy waxal nee na ma ndax ndax mën ngaa wax dëgg ba ñu la dëgg la de waaye dañ la koy laajut mën ngaa wax dëgg wala ñu ne waa dëgg la de waaye sa yoon da cee newut mën ngaa wax dëgg wala ñu ne waa dëgg la de waaye dama yëlifut mu ne kon nag bala ngaa bala ngaa wax dëgg na ca benn ñett yooyu am bokk na ci maandu bàyyi kooku alali jàmbur jum jum la boolewut nga maandu ca deru jàmbur nga maandu ca bañ bañ ko yàq deri tam julit nga maandu ca maandu ca moytu lépp lu koy tuur ndax li ngeen saa wax ne kullu muslimin ala muslimi haram damuhu wa maaluhu wa irduhu lepp julit bi haram la ci julit ba ca dess haram la ci ben julit muy te muy muy aram dara te ben julit haram la ci julit muy ala le ben julit haram la ci am muy yaq ben julit Abdullah haddan wax ni ni ko nek war naa limu mom mu ak liñ ko bolé ak liñ doonul dara limu mom mu tey ko bu wér mu mu di diisoo ñam ko bokal li mu doonul dara yoonam bañ caa nekk maana kooku dem na ba ci sa digg ak mala yi rëbb bu lekk dagan na ci mala yi dagan lekk waaye rey rey awrab ci lu dul aajo ak tooñ la yépp lor yépp rab bu dul lor itam dañuy bañ ko ko rey ba ci yooyu kër yi ni mbott xorondom sànqaleñ njamb njugub wala janaab ak yu dem ñoom nga bëgg nga di ko rey ndax ak ak tooñ la yi lor nag mën nga leen a rey moom xaj bi màtte jaan jiit yi nga xam dañu lor mu sëngal waaye yi nga xam ne loolu kenn moom dañu bañ bañ nga rey leen ba ci dagg garab te amoo ci soxla sax yooyu yépp caag caag ñàkk maandu lañ koy limale kon Manu kon jëf la ak bàyyi yañ digle nga jëfe ko nga jëfe ko séegante ngi ci ngay seexal lañ yañ digle nga yañ tere itam nga bàyyi ko yàlla sunu moom bool dimbale bon defal tawfiq xéem ci ak njub te saxal ci te def na dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nangam suñu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh